Juga ci mbedd bi ñu nekkoon dañ ci meneen mbedd moom tamit noonu rek la mel tuus mu métti moo fi am ñoo ko gisandoon voilà tamit gis ngeen ni gis ngeen ndox mi mu mel ñu ci biir ndox mi fi ñu toll nii ci jumaa ji nga xam ni moo nekk ci marché Zaga ngeen gis ni borom noonu waaye gis ngeen tamit nekk ci biir ndox mi la ñu nekk voilà te suñu maître moo fa nekk mu suñu kanam borom place boobu moom dafay xaaxal di sotti ci dafa dugg ci biir place am mu noonu ji muy jumaa bi nekk suñu gaar bi moom ngeen gis noonu voilà ak voilà ñu doxaat ci kanam wëlbateekuwaat ci beneen mbedd ci meneen mbedd nii la demee moom tamit mu mel ni amul fenn foo xam ne nit dina fa jaar te xuusul ci biir ndox mi sareet yi fuus fuus yi ak ñuy dox ak seen tànk di jënd ci biir marché bi wala ñuy ay jaaykat yi xëy si di liggéey amoon na jël fii

Eh, un Mana mu? Ah, Eh, voilà, oui, voilà. voilà ñu ngi euh, kon fii ci euh, bassin bi ndox bi fi nga xam ne fi la ndoxu Touba bi yëpp di daje ngeen gis nag fi ñuy toll nii bassin bi dafa fees dell dell dell ba fi mu ne nii ndox mi mu ngi nii di génn ndox mi mu ngi nii di génn voilà ñoo ko gisandoo ndox ndox mi voilà ndox maa ngi noonu ndox maa ngi noonu ñu ngi may ubbil voilà ñu xool voilà gis nañu ko nii gis nañu may may nañu voilà muy ndox moo xam ne nag gis nañu ko gis nañu bassin bi nii actuellement ñu ngi fi bassin baa ngi nii gis nañu ne dafa rembet gis ngeen ko fi mu ne nii yéen a ngi jàkkaarloo yéen a ngi jàkkaarloo ak ndox mi gis nga bassin bi fi mu ne nii fees na dell rembet na ba fi ne nii mu ngi noonu di tuuru kër ña ngeen dama dafa yaxam naa ndax waawoon si bu njëkk ba ñu ko voilà ba léegi ñu ngi fii basin bi yëpp yëpp fees na gis ngeen ndox mi mu ngi génn di dugg ci koñ-koñaan yi fees na ba fi ne nii amul fenn foo xam ne nii amul fenn foo mën a taxaw te taxawoo ci ndox voilà gis nañu ko ñu ngi taal seen machine yi euh, voilà mu ngi nii voilà mu ngi nii ndox maa ngi nii di génn Voilà ñu ngi ci entrée yoonu Daaru bi nii seen ndox mi jóge ci bassin bi bassin de stockage bi voilà ini ngi yang jël yang la ngir dem foofu voilà ñu ngi nii jëm ci ini Daaru bi ngeen di dem voilà di voilà ci kaw yoonu daara bi la ñu nekk nii kaw yoonu daara bi la ñu nekk nii dem fay voilà ba léegi ci yoonu daara yi ngeen gis nii voilà fii mooy ndaamaatu foofu mooy ndaamaatu ngeen gis mbedd yi ñu nii voilà ñu noonu yëpp ndox la

voilà nii voilà. loo xam ne nag lu yéeme la nag lu lool la. waaw dafay dafay ba maanaam saret yi mën a toog sax. ah Baba Diallo bopp. eh dinaa kaname de dina dafa kaname dem leen ci ginnaaw ndox mi dama ko ci daan yàquloo. kon da ngay fay. kon da nga def lépp. ah lu ne wóorul nag. voilà ñu ngi nii. yaa ci benn ndox mi man di tax sa taw ko dëkk ay waay ah baaxu dam ñu tollu ni gis ngeen ko ñu ay place boleh boé mo ñu boleh waay boé boé ak ñu boé le boé boé damay jëpp sama boé do ko ko ndox mi hauteur ba ini yang disembah memang ini yang baru. ngi nii ke daaru kër ñangi angalam ak ndamatu la ñu nekk nii ngeen ñi moom ay place yoo ni gis ngeen ñu ngi ci biir voilà ndaanaata la ñu nekk ñu ngeen gis ñi nag dañoo génn ba jël saret jël seeni bagage ni ngir euh, wut ak seen Yeah. njaboot di ronsen ay Bagas, ngeen gis ni mu melni ni sax boutique la ci dewli nak taxar ak ceeb ak suukar ak lepp lu ñuy jëfëndiko rek ngeen gis muy nonu ñu teg sareet baa ngi noonu seen ay dëkkandoo ñëw di leen jàppale ñu bëgg a jege nag kër ga ngir mën a xool image yi mu demee foofu ci biir ñu dugg ci biir kër gi fekk soxna si di jagoot toog ak njabootam kër gi yëpp fees ndox waañ yi ba ci toilette yi fepp di ndox ba ci ngunu ginar yi bàyyiwul fenn xol xool càmmoñ jor fepp rek def na ndox ñu jege soxna ci ngir jox ko suñu micro ñu ngi ci euh, yoonu daru angle ndamatu biir ndamatu lañu nekk ni sax actuellement ndax nañu talibo seen ngeen suñu karam noonu lu toll ak ay 150 mètres jàpp 200 mètres mooy tali bi ngeen gis euh, mbo mbooloo mi ñu ngi noonu di jàll kër yi nag yëpp ngeen gis génn nañu kër yi ngeen gis yëpp génn génn nañu ba ci yenn kër ci suñu ginnaaw waaw tey ngeen gis kër gi xam ne miir bi moom ndox mi moo ko daaneel kër gaa ngi nii gis ngeen dafa fees ba waa kër gi génn nañu voilà kër gi moom ngeen gis noonu sax ci suñ kanam xanaa dañ koy jege rek jox ko suñu micro mu wax ñu ndox mi ñoom nañu ko dunde ak euh, ñi ay famille nag yoo xam ne nañu wax ne fukki famille yoo xam ne ci bari gën nañu day wuti fu ñu làqatu ak seen njaboot ci yoonu daaru la la nekk ku mel ndamaatu la yoonu daaru ndamaatu la nekk Bravo fii kon ñu ngi ci à 150 jàpp 200 mètres ci jumaa ji ngeen gis nag ndox mi xale bi jógee ci jumaa ji jëm ci biir marché Ocass diggante kër sëñ Abdoulaye ak sëriñ Fallou moom ngeen di gis nii xale baa ngi nii oto mënatul nit ñi dañuy xuus te dañuy wetu te ku ne xam na ni bi dafa toj am ay kamb nii la mel nii la mel kon ñoo ko gisandoo ñoo ko gisandoo ci ngeen nit ñaa ngi noonu di xuus di dem nit ñaa ngi noonu di xuus di dem ku bëgg a dem jumaa ja wala nga bëgg a jóge jumaa ja ñëw marché Ocass nii ngay def muy lu doy waar nag xam ne tata bi fi mu doore ci euh, wetu kër koñu kër Serigne Fallou digganteem ak jumaa ji xam nañ ne soriñtewul daanaka 40 mètres bu ko matee sax waru ko ëpp yéen a noonu